xool waruñu ko xool avec un avec avec de l'émotion parce que porter une tenue c'est s'engager c'est prendre des engagements maintenant ji bi wax na ko nee na est-ce que avertir nañ ko est-ce que def nañ ko nu mu tuddati mise en demeure parce que troisième degré bi mooy radiation bu fekkee respecté wuñu yooyu radiation bi ëpp na beneen mbir bi ci topp mooy il faut que ñu nekk ci dañ nekk ci dëkk bi nga xamante ne nous avons nos autorités qui se prosternent devant des chefs religieux a chaque fois qu'ils ont l'occasion muy ñuy waayal élection surtout dañuy dem Touba plusieurs fois dem Tivaouane plusieurs fois su ko jébbalu dafay affaire on a montré ses supérieurs en photo ñu sukkal également ay ay sëriñ donc également xëy na ay supérieur am la roy xëy na ay supérieur am la roy mais man sam problème du yëpp mais dama gëm ni rek bu fekkee parce que liggéey jaamu yàlla la également da ngay fonk fonk sa liggéey fonk waxtu fonk waxtu liggéey ci jaamu yàlla la bokk mais li ci topp derrière mooy toute cette émotion cotisée et cetera et cetera ça ira jusqu'où il y en a même qui soutenu alors qu'ils ont des problèmes avec leurs employés donc tu ne peux pas oui cest tu as des problèmes avec tes employés et derrière tu engages quelqu'un d'autre c'est très paradoxal kooku am na yeneen yoo war a régler balaa ngay régler yu kooku j'ai pas compris. <laughs> on a compris. Papis boo comprendre mooy da nga suivre bu comprendre rek suivre actualité bi. toppul cas bi mais comprendre. toppoo cas bi. bàyyi ma bàyyi ma bàyyi mu sedd bàyyi ma bàyyi waaw mais dafa am dafa am dara je pense que dañu war a constater dara li ñu war a constater mooy dañu war a sant yàlla. pourquoi ñu war a sant yàlla mooy quand pour man accident de parcours wala incident dafay am te incident bu amee dangay bañ mu yóbbu ko ci proportion boo xam ne eggu fa ñu ñëpp ay sénégalais lañ te problème yu mel ni bëriwul lu muy am bëriwul donc loolu moom ma ci gën a metti c'est-à-dire dafa am loo xam ne pour man police ah, dañ ko war dooleel suñu kilifa police yi dañ leen war a respecter waruñu leen fragiliser buur lu mel nii amee sanction war na ci mën a am mais bu demee ba radiation di ci am peut-être que c'est un peu trop moi je pense que munoon na munoon na ñàkk par exemple ñu dindi ko maintenant comme li Pape Djibril wax xaw ma lan moo am ci li ci xew dëggantaan xam nga ku ne wax nga sa version mais lu si ak lu mu si mënti am rek mooy que pour man reflété wul li ñuy dund chaque jour moom laa ni fii ku fi nekkul lii lële nga te ni koy dundee vraiment ak daraja boo mun munti am ah bu sëñ bi ñëwee nga def li nga war a def sukk ça ne veut wàññiwul ci nit ki dara parce que bu doon day wàññi si nit ki dara dëggantaan ñun ñi ñu fi toog ñëpp kon suñu daraja chaque jour mu wàññeeku donc te loolu c'est une chance unique dañ ko war a préserver bu parce que bu président de la république mënee sujjóot keneen war na mën a sujjóot par contre pour man incident bi ñu yóbbu ko foo xam ne à la limite ak fii fii communication information fu mu toll day yàq deru li ñuy dund sax fekk en en réalité affaire bi tollul foofu ñun ñi nga xam ne nag ay sénégalais lañu nekk lii war nañ ci mun a jox suñu avis mais am na ay actes yoo xam ne suñ ko posé. ça ne fait que fragiliser la police c'est pas bien bu ñu ci dem ak émotion mën nga am avis mais am na acte yoo xam ne soo ko posé répercussions yi mën na mën na mën na mën na ëllëg ëllëg képp ku fi am ambition politique Sénégal fii am na taxawaay boo xam ne da ko war a taxawaay tu peux donner ton avis mais il y a des actes que tu poses après ëllëg mën na la mën na la indil benn benn benn torof torof donc je pense que bu ci kenn jël opportunité régler benn problème wala jël ci émotion Sénégal la ñu nekk. c'est ça màggal Touba 4 million xaw ma million de Sénégalais ñoo fay dem ay alkaati la ñu ay douanier la ñu. doo xam euh, commandant bi. doo xam policier bi doo xam te dañ koy dund mu neex. te loolu suñu ndam la. Mm. xam nga lu ñu war a bàyyi Sénégal. tarfatal ay ni léegi bu nekkee lu ndaw ñu jël lépp li am solo lu ñu tabaxoon dafa mel ni nga tabax ba ca kaw ba mu ne mu am benn brique bu ci daanu. nga bëgg màbbal tabax ba nañ leen téye suñu ay at problème bu ñàkk munul bañ a ñàkk bu amee ñu bañ ko yóbbu aussi foo xam ne dafay indiwaat yeneen mbir taal yenn mbir yoo xam ne on a pas besoin de ça surtout ci période bi je pense que période bi c'est très important aussi ñu xaw a ñu xaw a truc euh, vraiment jéem a rek les mais dans un pays comme ça un problème comme ça pouvait se régler autrement ba muy bañ ñu bañ ñu ñuy xasee dara quoi naan au Sénégal y a un policier di pour man way wi rafetul parce que lu ñuy dund en tant que jullit ak catholique di nekk chaque jour ci réew mi vraiment je pense que loolu ay acquis lu ñu war a et mooy il y a plusieurs façons de sanctionner mmh. c'est-à-dire que pour man euh, ak fii réew mi toll mm. ak jafe-jafe yi fi ñu toll ak taux de chômage bi ni mu sonalee nguur gi mm. xëy bàyyiloo nit liggéeyam il faut que véritablement la faute soit lourde mm. je pense que y' a un, y' a y' a y' a une façon. Mm-hmm. Mm-hmm. didactique et pédagogique d'aider mm-hmm. am na cas yoo xamante ni c' des opportunités. pour que nit ñi mën a évoluer parce que c' est vrai que la valeur travail elle est impo euh, euh, importante ci yoonu murit waaye doo dem xanaa ak ak ci ñëpp sax mais doo dem policier boo xamante ni dem na ba sol tenue bay liggéeyal réewam hmm? avec euh, quelles conditions koo koy wax dëgg fa yàlla ne bëggut liggéey c' est autre chose. Cheikh bon man euh, comme je dis hein pour man suñu tarixee dafa dafa waroon nekk loo xam daf ñu daf ñu dooleel mooy lan parce que am na am na ay nit ñoo xam ñoo ko initié ñu jéem a roy si ñoom mais aujourd'hui dañoo dem ba mel ni ni ñuy dundee tarixa yi dafa dañ genre folklore dañ ko wala voyeurisme mm. alors diine ji boo si jël fi mu lay delloo mooy lan parce que li mooy li yàlla wax sama jàng soriwul mais diine bëggul ngistal te aujourd'hui dañoo dem ba tarixe dafa mel affaire ngistal soo xoolee réseaux sociaux yi chacun day jéem mettre sëriñam en avant tout ça alors que boo xoolee les précepteurs confrères yi gisoo si kenn kuy wane loolu ñoom ñëpp dañoo déggoo dañoo kii mais ils sont discrets sa yàlla avancé mais aujourd'hui il faut ñu génnee folklore bi ñu ci dugal à mon avis voyeurisme dafa cee bari trop pour man mën nga dund sa diine mën nga dund li nga gëm tout ça sans je pense que nekk na loo xam ne war nañ ci jéem réfléchir ñun ñëpp ku nekk def benn introspection sa bopp mhm. pour ñu jéem loo xam ne dina jëmal suñu Sénégal kanam Yérim yaa ci des de pour ñu teg jóg waaw euh, am na livre bu ma bind bu tudd c'est goulot ki étrangle le Sénégal mhm. li xoj Sénégal dama jàpp ni ci li ko teree dem ci la bokk am na ma bind un état qui déconstruit maanaam état boo xam ne day fecceeku xam nga Sénégal ëtt la euh, kër la kër gi am na ay nekk am ëtt ëtt bi jullit yi rek nekkuñu fi am ay jullit am ay katolik am ay animiste am ñoo xam ne gëmuñu dara loolu jullit yi ñun aussi faaw ñu koy fàttaliku mm-hmm. ci biir jullit yi ci boppam seen néeg yi dafa am ay pentre yoo xam ne yi ay tijaan yi ci nekk ci biir tijaan yi mu am ay ñaseen am ay ñeneen am waa Medina Gunaas am waa ñeneen am ay murit am ay ñeneen ak ñeneen donc Sénégal benn trait d'union kese kese la am muy état wu Sénégal waxuma république république beneen notion la xam nga république culture la man waxuma république état laa wax pouvoir bi laa parce que boo nee république rek dangay ngay une dimension culturelle ou civilisationnelle état laa wax li téye Sénégal nga xam ni fële ñëpp di retrouver wu mooy état wu Sénégal état nag policier dafa bokk ci li koy jëmmal c'est ça policier sañ te def lu ne parce que l'État c'est quoi c'est d'abord avant tout le pouvoir c'est la rep c'est le pouvoir c'est la violence physique légitime loolu mooy État donc li keneen mën a def symbole bi di jàll bokkul ak bu ko policier def nañu xam xamante dëgg parce que nit ki aussi boo waxul dëgg rek wax fen li fi nekk mooy nañu jëmmal État wu Sénégal parce que aussi le jour u ñu dem ba état bi affaissé wu Sénégal dara du fi des. Mm-hmm. donc état bi moo tenir Sénégal. donc symbole yi yi nga xam ne dafa dafa aju ci état bi yëpp dañu war a taxaw. Mhm. ñu bëggee réew mi mën a continuer. baal ma dama bëggoon rek pour conclure. Mhm. indi rek deux éléments d' appréciation rapidement rek. xam nga wax naa ko sànq police la du lépp la ñu mën a wax. Mhm. mais tamit je pense que du gaieté de cœur que policiers yi ñuy génne un jeune policier boo xam ne il a sa carrière devant lui loolu faut ñu comprendre ko élément d' appréciation yi day bëri. parce que nit ki aussi am na son dossier am na jaar-jaaram am na yoo xam ne mën ñu ko wax fii mais enquêteurs ñoo xam lu tax ñuy dem bu foofu beneen bi mooy vraiment lu ñu li ci xaw a métti rek wax naa ko sànq mooy lu ñu déplacé débat bi su jot bi du problème président Macky ak tout tout le monde le fait mais dañ koy contextualiser cest à fi nga ko defee la ma joxe beneen exemple dafa mel président Macky Sall avril mu toog jiite le foofu a xool du question su jot bi wala am loo gëm non c' est ni mu cest bu mu tombé moo tax dëgg yàlla il faut ñu ñu ñu ñu contextualiser wul ko ñëpp comprendre ko mu leer yéen wax na ko sànq tenue dafa am ñuy signifier man jàpp naa waxuma sax policier wala militaire pour man maillot Sénégal sax boo ko commencé sol le maillot Sénégal ngay sport am na loo xam ne war nga def attention. Hmm. wax ma nag koo xam ne c'est la force de l'ordre la wala armée la il faut vraiment ñu ngi def si attention amuñu benn intérêt wax dëgg yàlla pour toroxal nit wala pour dàq nit loolu amu amuñu si eh, benn intérêt. dëgg yàlla oui loolu loolu loolu. man ci tali bëggoon naa ko waaye bàyyi tali yi en fait c'est c'est la boucle du Fuladu le Médina Yoro Fula <laughs> foofu tamit tali yi. vérifier ndax amu fa dara bàyyi na caajaay léegi gis nga. Pape loo am foofu loo am fulaadu. bokkul di fulaadu. yow kañ nga fa demoon sax. Medina yoroo fulaadu. ok ok. li ñu tumranke mooy tali. ñu nuyu waa Saara Yoro Usu yaa fi tudd foofu man de mujj dem ci Fulaadu. man leen di jottali nuyoo waa Saint-Louis tam démb ak Kébémer. da <laughs> kii wuy ma ràññee ko. ràññee ko ràññee day dem coono tàggoo. day dem coono tàggoo dem na fi Mauritanie tàggoo dem na fi Guinée tàggoo léegi ay ndar lay wax. te dem léegi ñëw léegi il est très dangereux j'ai mes dates pour le <laughs> Vraiment ñu leen di gërëm di leen sant